te loolu mënuñu ko nangu Macky Sall ne peut pas faire moins que Abdou Diouf il peut pas faire moins que Abdoulaye Wade c'est impossible ce qu'il veut faire et ce qui a commencé aujourd'hui s'il continue on va vers des situations extrêmement délicates et dangereuses Macky Sall ne retirait lii en 2011 quand Wade la voulu le faire il a retiré et je pense que li li li li nar a am moo nar moo nar gën a graaw li amoon 2011 ça ça ne fait que commencer Euh, na ko retirer en tant que député suba. waaw euh, mais ñun demain la ñu nar a voter le projet de loi mais on demande à tous les Sénégalais de faire comme en 2011 de sortir et de demander à Macky Sall de retirer ça qu'on aille aux élections et que le meilleur gagne. Assemblée nationale xam ngeen la minorité ils leur majorité lu ñu décidé foofu mooy am maintenant. ce qu'il faut faire il appartient aux citoyens sénégalais parce que léegi mën nañu ko éviter c'est une question de citoyenneté il appartient aux citoyens sénégalais bi nga xam ne moom moom moom le pouvoir le pouvoir appartient au peuple il appartient aux citoyens sénégalais de prendre ses responsabilités c'est ça la vérité waaw kooku muy député euh, Pastef waa gis ngeen ko noonu dafa mel ni gis ngeen ko yéen ko bokk gisandoor gaa yi ngi sànni lacrymogène gendarme yi fii nag dafa mel ni fii la fii la fii la nit ñi gën a bare voilà. du jamais vu kii jàkkaarloo Thierno Alassane Sall mooy wax noonu. waxuñu waxuñu. le doñu ñu ñëw manifester pacifiquement. suñu constitution moo ñu may. parce que gars yi dañ ko jalgati. lu ñu bëgg def c' est un coup d' constitutionnel. l' de la constitution ne kenn mënul réviser. pour laal mandat wu président de la république kenn mënu ko yokk lu bu député yi bëgg a def du dëgg du yoon amuñu droit yokk mandat wu Macky Sall c'est impossible mais les conséquences c'est qu'il viole la constitution lui-même a dit wax na recalé yi ba mu dajeeg ñoom nee na leen munu ma changé munu ma ci affaire bi dara élection yi dina am le 25 loolu mooy dëgg. suba da nga bien sûr. campagne da ci campagne la ñu nekk nii. ci campagne. montagne la ñu nekk Macky Sall moomul réew mi il a la force il croit avoir la force de l'ordre avec lui mais le peuple est plus fort que lui et on doit quand même on doit quand même arrêter ça fait cinq ans qu'il fait ce qu'il veut dans ce pays là ils ont détourné l'argent de ce pays en masse ils font ce qu'ils veulent rapport Covid baa ngi fi texe rapport Covid baa ngi fi gars yi lekk xaalis réew mi waxuñu ci. xale yi tëj nañu université bi depuis des six mois xale yi jànguñu waxuñu ci. waxuñu ci gars yi dee ci gaal gi waxuñu ci suñu géej gi ñuy wax ay rapport commission d'enquête parlementaire ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel nag bu ñu dañu ñàkk fayda ba ñu jàppee leen ay dañu wuruj te dañu corrompu ñu nangu lii jàll ñoom ñu xam ne bu dee dañu nangu révision constitutionnelle bi ne amul problème mooy lu ñu leen doon taxal am na nañu waxante dëgg réew kenn du seetaan ñu kay fooyee c'est pas normal par rapport au PDS par rapport au moi je n'ai rien à dire au PDS le PDS est restera ce qu'il a été un parti qui a torpillé la constitution pandant qu'il était au pouvoir un parti qui a généraliser la corruption dans ce pays waaw